ak ñi mu dénk dëkk bi ñun li ñu nekkee ci dëkk bi ñu dénk ñu ko ñu di ci dox suñ gisee dara war koo def daneen dem ci sëñ bi leeral ko suñ ci amee ndigal def ko su dara xewee ci dëkk bi danañ dem leeral ko ko di ko déglu ndigal lum ci joxe mu mu ñu doxal ko bi mu xewee dem nañ ci moom ci ñi ko séq ndax lépp ci njaboot gi la leeral ko xalif général de Mouride